a évoqué la question sur les fonds politiques. Mm-hmm. Donc, quel est votre avis sur les fonds politiques C'est première mm-hmm. question. Madame la Présidente, êtes-vous pour ou contre la présence du Président de la République au Conseil supérieur de la magistrature mm-hmm. Allez-y, allez-y. Allez-y. Ok. Ok. Donc, euh, la plainte de Mansour Faye ne vous faites pas peur. Voilà, merci. waaw indi gaaw ma toog madame la présidente répond si tu as possibilité de prendre une question. waaw waaw euh, pendant ce temps ñi bëgg a poser yeneen question yi mën nañ ko wax. pour ce qui concerne les fonds politiques moi j'ai clairement exprimé ma position vous savez dans tous les pays monde je dis bien tous les monde. ces fonds existent. Vous avez entendu dans certains pays des prises d'otages. Que nous en préserve. Ou les gouvernements, ils ne l'avouent jamais publiquement, ont négocié la libération de leurs concitoyens. L'argent qui a été donné, ça vient d'où à votre avis Le Sénégal, on ne citera pas pays, le Premier ministre, a eu à appuyer le paiement de salaire d'un pays, d'un certain pays. qui étaient dans des difficultés. Mais les, les fonds viennent d'où Pour être faire plus simple, que Dieu leur accorde à tous une excellente santé. Mais s'il y a un cas sanitaire important d'une personnalité, à Ziguinchor, chez le Premier ministre, ou au niveau de Diaganiao, chez le président, le président doit intervenir. Il va le faire avec son salaire de 4 millions. Donc les fonds discrétionnaires existent dans toutes les démocraties. Toutes les démocraties. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre en place un système qui respecte le caractère discrétionnaire des actions. Vous n'allez pas aider quelqu'un et le mettre dans un rapport financier. N'est-ce pas Parce que nous, Mais il faudra qu'il y ait évidemment un rapport adapté pour justifier l'utilisation des fonds. Voilà comment je le vois. Ce sont des fonds extrêmement importants pour les missions de diplomatie souterraine, parce que la diplomatie, elle a deux caractères. Elle a le caractère public, mais l'essentiel des résultats sont obtenus par des interventions non publiques qui nécessitent financement. Et tout ça, c'est à partir des fonds discrétionnaires. Donc moi, je considère que euh, c'est important que ces fonds existent, un système qui permettra de rendre compte sur leur utilisation. Voilà comment moi je le vois. Et en tout cas, c'est le conseil que j'adresserai au président de la République. Pour ce qui concerne le duo euh, Diomaye Sonko loolu moom ci wolof laa koy wax man li ma jaaxal mooy opposition bi benn programme lañ am xam naa nag ñaanlu nañ ci bu baax a baax a baax na Sonko ak Diomaye teewloo boobu programme rek laa dégg ci ñoom parce que nag aussi dafa di tradition seen ca parti ba man APR laa newoon APR dama fa newoon amitié c'est un mot inconnu au dictionnaire de l'APR inconnu amut mu saab xeex ba ca seen biir ca biir lay doon yow ka nga xam ne moo leen yilif mooy yónni diw ca télé ba demal nga attaqué ko am affaire noonu la ñuy dundee kon daf leen di jaaxal bu gisee ñaar ñoo xam ne amitié leen lii war a mën a ànd mais nit ku baax sax boo fekkee ñuy ànd mais da nga leen di ñaanal jàmm loolu la loolu jullit waaye tous les jours seen seul programme ñoo nga cay dox di da ñaanlu mooy nañ féewal waaye defe naa ne président ba tontu na leen président c'est le président. président ministre premier ministre coordonne d'action du gouvernement li teg soon rek leen mais li te gën sax mooy ñu doon ay xarit waaye ñoom xamuñu loolu yàlla dàqal leen seytaane ndax seytaane dafa bëri doole seen entourage aussi liggéey ci parce que yu ci bëri aussi encourage yi entourage ñoo ko yàq ci aussi 100 jours yi la ma aussi apprécié mooy gisuma lañ daan lañ gisoon lañu ñu xamoon mooy l'envahissement des familles yal na yàlla aussi jàppale leen ci bu baax a baax moo may may ma wax ci plainte Mansour Faye ndax ragal naa plainte Mansour Faye man ragalu ma woon ko moo newoon fii yor lépp yor police yor yor yor gendarmerie yor justice ci def ko ne ma jàkkaarloog moom ne ko fii waroo fay def troisième mandat. ñu dem ba 10 heures de temps avant la campagne mu ne report ma ne ko du fi amee tous les jours nag ñu ne ma tey la la Macky Sall jëlal du jël moo génn réew mi bàyyi ma fii. bàyyi bu Sénégal kon bu gorom Mansour Faye vraiment moo may inquiète moom nag yàlla la def moom xam na ko benn qualité la am mooy être le beau frère du président wax leen ma beneen Aliou Sall la ko wax ah. ñoo bokk seen kër Aliou Sall la ko wax ma d'accord ci nag amul beneen qualité du ci njàng du ci ci base ba ñu koy fel faj fal maire fekkee ngeen ko ñetti fan ñuy annulé ay bureau de vote ñett ku ñu ko defaloon nga gagné. ku ñu ko defaloon ñetti fan génne char yi teg biir biir biir biir seen waaye nag bañ ko waxee mu ne woowee mais comme moom premier ministre la dama koy porter plainte non da ngay porter aussi da leen di joindre à la plainte les vingt vingt députés trente députés lañ sax bu ñu fàtte Aliou parce que Aliou Sall la mu la yegg man waxuma la un dixième député ya dama nga laaj pour que ñoom ñu dindi seen immunité parlementaire parce que bindal nañ la un rapport de 17 pages yaa nga ca biir rapport ba loolu dafa jeex ma dafa am ñoo xam ne moom ci la bokk yewoogul xamul ne ci beneen Sénégal lañu ñu dugg depuis le 24 mars fii justice bi doo toog ndar ne leen tëjal leen ma kii ah wala condamné loolu jeex na c'est terminé kon ñu koy xaar le 27 juillet ca tribunal na fexe nag ba bu ñëw na indi déclaration de patrimoine ak waa këram fii au Sénégal ak à l'international kon loolu loolu loolu mooy li nga xam ne may ñu may ñu may ñu may ñu waaw may ñu may ñu kon loolu mooy li nga xam ne euh, mënoon na ko wax ci mbir mi conseil supérieur de la magistrature wax naa ko ancien ministre de la justice là ancien garde des Sceaux bon on est entre sénégalais aussi ah wax naa ko sànq sama doomu bàjjen dafa am solo voilà je considère que la présence du président de la République est très utile par contre je récuse toute